waaw euh, maa ngi leen gërëm di leen sant parce que en réalité euh, da nga may invité ma apprécier de manière globale mm-hmm. la situation de monsieur Sonko mm en fait la situation judiciaire j'allais dire oui. Oui. mais oui. du point de vue politique euh, je laisse ça à mon ami Dianté je laisse <laughs> ça mais en réalité euh, lorsqu'on observe euh, en fait évolution depuis la création de PASTEF et même bien donc bien avant ce dont on pourrait se rendre compte xam nga mooy lan. moo di que ni Sonko est un véritable phénomène au Sénégal. Mm -hmm. depuis l'aube des temps je n'ai jamais vu une personne wala mu am ay dossier judiciaire ah mhm. bu tolloog moom li mu vivre en moins de. c'est trop. Mhm. c'est excessif. dañu benn dafay dem bala boobu du jeex beneen ñëw balaa boobu di jeex beneen ñëw c'est finalement on s'y perd. et est-ce que et est-ce que vous pensez réellement aussi euh, il n'est fautif en rien lii yëpp dañ ko ko teg euh, tous ces dossiers là bu dem euh, moromam ñëw diffamation bi c'est suite à ce qu'il avait dit lañ ko lañ euh, ko porté woon plainte Euh, procès avec euh, Adji Sarr bi il s'est rendu à Sweet Beauté euh, il s'est passé ce qui s'est passé suite à ça ñu porté ko plainte ak yeneen ak yeneen ah non non non en pas du tout c'est juste pour savoir mhm. ndax moom aussi amu ci une part de responsabilité bien vrai que comme vous l'avez dit je suis entièrement d'accord en mhm. un laps de temps li nga xamante ne teg nañ ko ci kawam judi dossier judiciaire yi nga xamante ne contre lui bëri na mhm. xamante ne il a il est responsable yi nga xamante il est pas responsable. non en tout état de cause. liñ ci mën a jàpp mooy lan. moo di que ni en fait euh, il est poursuivi sous plusieurs chefs d'accusation. oui. te bu nekk nag benn benn nag ba tey abutiru si benn. benn amu ci. benn ba tey abutiru si. d'accord moo tax man la dafay am benn procédure balaa muy jeex beneen ñëw. Mhm. beneen ñëw ba ba ba finalement lui-même je sais que lui et ses avocats. Mhm. vont vont vont, vont carrément s'y perdre. parce que en fait ak euh, à quelle procédure la ñu war a jox ak mais c'est ça c'est ça le problème maintenant en fait euh, conséquences yi nga xam bi war nañ ko euh, war nañ ko mën a jàngat situation mhm. mënu ko en fait mënu ko si xam tant que une décision définitive n'est pas intervenue mhm. euh, da nga commencé si boobu noonu nu mu tudd avec la dame comment ça s'appelle avec Mambay ah mais kooku noonu il a toujours donc la euh, donc la possibilité donc d'interjeter euh, en fait de se pourvoir en en cassation avec euh, Sweet Beauté bi c'est une situation compliquée difficile parce que il a été jugé en contumace loolu la ñu wax c'est ça le problème ñu ngi koy tëj këram bon que tëj boobu moom loolu moom puisque yàggu si damay wax ne la kooku moom dama xamul fan lañ ko teg mooy blocus bi blocus bi. amuñu ah, ko justifier. ni en fait ni en droit sante ne se justifie pas parce que nit ku nekk dafa am ay àq ak yelleef yoo xam ne constitution moo la ko may nit ki soo demee ba koy xañ liberté war nga ko teg fu leer a leer a leer leer te kooku nga en fait nga xam ne kii moom moo war moom moo war a veiller à la bonne application donc des muy des libertés mais c'est le juge et de ce point de vue là sur ce point là il aucune décision. juridictionnel qui pourrait en fait euh, justifier que loo que ñu jàpp ko en fait barricade ko ci biir këram